asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aljuma fukki fan ak juróom ci weeru tabaski fukki fanak juróom ci weeru soulier ñu fas yéene yoo gën nënkal leen li fi ñu rokkee ci ay xabaar. xabaar kon dañ koy tàmbale kon ci le xalifa général des mourides ak Cheikh Mouhamadul mi nga xam ne nee ñu daal jamono ji ma nga ca Paris capital bu France moom daal jigéen a Dakar démb ci euh, guddi alxamis daal di dugg ci benn vol spécial ngir dem fële ca capitale française bii di euh, Paris. bu ñu sukkandikoo ci l'observateur moom moo joxe xabaar bi moom daal nee na le khalife général des mourides daal moom dem na fële ca France waaye nag bu mu dem ba tey nag ah, la daal moom dem na fa ba ci l'observateur muy xam la itam ne. Euh, la xëy général euh, démb laata muy dem daal def na ay ñaan ñaanal mboolem euh, umma bi yëpp ñaanal talibé murid yi ñaan itam mboolem kilifa diine yi nekk fii ci Sénégal yëpp ba tey l'observateur itam di wax ne daal déplacement bi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Mountakha xalifa général des mourides déplacé wu dem fële ci réewum France maanaam dem ci France mooy première déplacement boo xam ne ku tedd ki def na ko tukki boo xam ne daf koy def ci l'étranger maanaam def ko ci bitim réew depuis mu nekk la xalifa général des mourides le ñu génn ba